ñu ngi leen nuyu siyaat nañ ñëpp ñu ngi ñu ngi dalal ñëpp jàmm waa noppi leen waa noppi leen maa ngi commencé loolu yëpp ci biir waxtaan bi la ñu ngi nuyu ñëpp di siyaar ñëpp salaamaaleykum wa rahmatullah non bàyyil gars yi waxtaan mais ci suuf ñu ngi jëm ci bés bu rëy ay waay tey waaw bul yuuxu bàyyil yuuxu yi boog waaw waaw pare leen pare leen Abdou Mbow eh, ñu ngi ñu ngi siyaar ñëpp eh. ñu ngi nuyu ñëpp ndeysaan ndeysaan fii mooy parcelle fii mooy café gi toogal toogal kee la ñuy waxal pour mu toog waaye toogal ñu ngi ziar ñëpp di nuyu ñëpp ci làmb ji lañ eh noppi ci làmb ji lañ jëm dimanche incha allahu rabbi rek la fii nag day metti parce que seen yaram dafa tàng ñu ngi ci làmb ji actuellement ñu ngi fii ci mafia wu Papa mais tey dama gis loo xamante ni musuma ko gis ci côté Papa Sow musuma ko gis wala boo gëj naa koo gis mais ah, combat bi nii am na lu mu représenté pour Parcelles Assainies joor ah unité dix neuf vingt unité zéro sax ci la bokk ba Grand Yoff Grand Médine ah, ba ba ba sax golf ca la bokk wala golf bokk ji waaw unité 4 unité 5 kon gars yi tey lañu la ñu fekk fii Cheikh Mbacke maa ngi nuyu o passage son staff ah Pape Gueye Pape Gueye maa ngi koy nuyu bu baax ñu ngi waxtaan depuis démb ñu ñu suñu bopp alors Cheikh Mbacke maa ngi lay nuyu bàyyi la nga nuyoo ak askan bi ñuy seetaan ci bés bu rëy bi ñu jëm. waaw ñu ngi nuyu ñëpp. di micro ñu ngi nuyu ñëpp. di ziar ñëpp di wow di nuyu sama gaay fi teew nii ñëpp ma fi bee ngi nii. waa 12 37 ans. ma fi yaa bee nekk nii yow loo bokk Papa Sow. Papa ma caatu paa bi. yaay caatu paa bi suñu ah, du yëkkati ragal maa ngay door a gis. mais nag dañu xam naa comprendre naa quoi yar gi la ak bëri kersa bi bëri kersa bi ci micro la. yàlla mbiskit beñe waaye lay la laa beñe suukar <laughs> beñe suukar boo naa ci bokk ñi njëkk a lekk beñe suukar ak kafe gi jox ko kafe gi mu jàllale. ak kafe mu jàllale. doo ko jox kafe moo dàq lansaar fii moo dàq jàmm gën. fii moo dàq jàmm gën dañuy lekk beñe door a waxtaan. Eh, ah yéen kay lii mënoon naa ñëw avant may commencé yow tegal palaat balaa muy daanu bëgg lekk beñe bëgg wax téléphone. nii mës nañ koo gis fii si Paathal ah mangu rakku Papa Sow la mooy caatu paa bi alors ñu jëm ci bés boo xam ne bés bu am solo ñu gis tey ni ngeen dajaloo mafia bi dafa mel ni ki lii gëj nañ ko gis si combat Papa Sow quoi lii gëj nañ ko gis si combat Papa Sow. yow lii rek nga gis liiru dara. Hmm. yow da nga waroon di ñëw entraînement di xool la fa nekk. Hmm. parcelle un ba vingt six ñëpp a pare mobilisé wu te ki ñu àndal ñun daf ñoo gën a yokk confiance. Hmm. seetaan nañ signature contrat ñëw nañ entraînement am gis nañ ko. pare na te incha allah ñu ngi ñaan yàlla mu defal ñu ndam lu sedd guy. fi nekk yow da nga féete da nga féete woo supporter mais féete woo rakk daa mel ni affaire rakk bi da nga ko jël takk ko fële affaire supporter la léegi. muy jeune yow man déggoo lu ma la dama siy takk ri ba ñaa ko ba ay plastique yu bees taak laa jënd uniquement pour waajal esaat. Mm-hmm. man man benn yoon laay dem làmb ci at bi. xam nga loolu. poids saw kese moo yóbbu esaat. ñii ñëpp xam nañ loolu benn yoon laay dem làmb barke alxuraan. waaw loo teree wax ci micro bi. non maa ngi wax nii ci micro bi. maa ni kuy màcc crème. non non du sax sama yaa ma gën a xaw. waaw sa yaram tàng. <laughs> non du loolu des na. nee na moom euh, da plastique yu bees sàq la jënd. mais lii nii ma gis nii mafia bi nii mosuma ko gis dafa mel ni yéen waa a gën dañ leen a tiital nag. barki man gis naa ne arsenal bi ngeen def nii lii mosu leen ko def. yow ko dara déggoo lu mu la wax. gars yi pare nañ dix heures dix heures. dañuy fees denn esa gën a bon Papa Sow mbaxalu xeer la ku di bu mag moo koy yëngal ku di bu ndaw bu duggee day damm waaw xaar ma ñëw xaar ma ñëw nee na ñoo gën bon <laughs> waa ma lii nii mosuma gis ngeen def ko nee naa la yow lii rek nga gis lan jours yi déggoo dix heures day fekk esat fees dell non waa Lansar nee sax pare wuñu bu jàmm gën jàmm gën pare wuñu mooy loolu joxal ma saa ay micro jox du mbëru lan la mbëru fecc kat la xoolal caméra bi borom kat bi si ta man la du mbër buy bëree moo gën a bon <laughs> eh, ki doom nday Papa Sow la dama ne Siteu du mbër buy bëree hmm. Siteu mbër ñun ni ko xam nañ ko ci moom Siteu mbëru fecckat la te lamiñ bee rëy day taasu kooku noonu xoolal instant yi nag jàpp na ci ñàngatang bu amul soos bi subu kànja bu amul kànja bi la dal fi lay xoyom xoyomee ñoom dañuy xaar booy jaam a gëri nañ yem te régler toog ci taataa ñun ah, fu tawee man la sa waay fii dañuy folot di dox lu ñu neex dama ne la si ta laa la wax hmm. làmmiñam muy tërërër yi di ndellu di def ay business bis bu ñu leen su arbitre sifflé moo poisson na dëggal boppam seconde laa la Papa Sow lekk ko ngoon jot ñu ñëwee fii ñu misi ko. fobeere ko na ci leneen eh, mooy jaamagan déggoo lu ma la eh, nekk naa fa marché maam jaara tëri karo déggoo lu ma la wax jaamagan guy ga fépp fereg naa fa ay ati at. man dama leen xam barke maam Seera Fall dip ba may lang laa la wax. Hmm. ñun xam nañ ñu mu demee. boo jaamagan yi déggoo lu ma wax te ci dinañ leen di ndelloo. mais keroog bu bis ba laa la wax yàlla defee ba ay fi ruuy bañ tal ko fekke ko laa barke maam Seera Fall si ay jooy lay ñibbee jaam a gën. ñoxol borom kap bi du. danaa mën nii du la ah du naka mu. yaa ngi cool. yaa ngi faay du day day yar yarul mais gën a bon. non ñun nag xam nga <laughs> ñoom loolu gën a bon. maa jaam ak mo yar a xam yar ak civilisé moom dañ see judd quoi. waaw waaw léegi bés bi noonu ngay waajee bi ni ñu koy waajee comme noonu noonu rek comme ni ñu ko doon defee. micro bi doo ko teg sa gémmiñ yéen da ragal ay tapet ngeen. lu leer laa la passé ragal dëgg fi waaw yow ngay tapet yow micro bi sax mënoo ci wax yéen eh, waa waa jàmm gën micro bi mënoo wax te man man ngay xool doo xool fii. nijaay ñun waa jàmm gën leen bàyyiwul xel waaw ah, ñun waa jàmm gën dañ leen bon lieu lañ dëgg ñoom bon lieu lañ dëgg non waaw maa ko wax. non loolu du ma ko nangu. bon lieu lañ dëkk ñoom ñu dëkk bon lieu bokkuñ yoon. bu bon lieu la. bon la kay bon lieu la. li ma la wax du dañ. barki Seydina Muhammad si dana jàpp ne bis bii nii mbaxalu eh, bi. si dana jàpp ne am doon si moom mbaxalu xooti bi teel da ngay wan rek sa pour bi di xooteeku. barki leeru alxuraani karim si da doy gaay sax galandiku. ñu fa demee la sax mu a gaay di gestu di ko may yoon. boobu noonu ngeen am. waaw parce xam nga boo xamee ki ngay àndal daa naan jóge ci defet waaw war a defaraat yoonam nekk xale boo xam dafa nekk ci yoon dëgg la dëgg la waaw mais xam nga nit xam nga nit xam nga nit nit boo xamee boo nit nit boo nit boo xamee ki ngay àndal ah nit boo xamee ki ngay àndal barki ah. Seydina Muhammad foo ànd ak moom sa xel day daal ñu paasaw dañ ko xam dañ ko topp si lépp topp ko fépp ah, du si aaran sax lañ ko toppee fépp lañ ko toppee ñu suda tax ñu jug barki leeru alxuraan amaana lam moo demee nii nag lam moo tëradi mm-hmm. ay tolof tolof mais si ak pa bokkuñ sax yoon ku xam lamb ku ne xam loolu voilà sant yàlla bu wér kay booy jéey booy jéey waaw jéey jéey jéey si am yi tey sant alhamdulilah euh, yéen dafa mel ni kii mafia bi nii dafa mel ni kii dafa am lu leen yëkkati da ngeen gis côté bee waa jàmm gën lansaar pare pare bu doy waar mhm. sama gars yi xof xam nga ñoom Cheikh Mbacke ñoo duw dëgg la moo gën a bon <laughs> yu a bon saa yi borom baxalu rasta bi waaw inoo ngi ne nice waaw waaw dégg yowul waaw aja maa lay déglu. nan ngay waajee ak sa yow. ñun ñun ñun. ak avant tout Papa Sow ñun ñun Papa Sow du suñu mbër de Papa Sow suñu grand frère suñu mag la Papa Sow dañoo féetewu si moom dañ koy yàgg a topp yàgg a sonn si moom. Siteu amaana làmb rek moo doy waar te di gaan moo tax sax moom Papa Sow ñu dox ba daje nii mais Papa xoolu xoolul sax kuy Siteu Papa Sow ñi mu bëreeg Siteu bëreewul ak ñoom. làmb kaw lay fekkante même buy fekkantee kaw sax. Papa Sow xoolul Siteu Papa Sow Papa Sow li jëndiwu Siteu bàyyiwul Siteu xel Papa Sow xam nañ ko bu baax a baax xam nañ lim capable ak lim coupable bu baax a baax a baax Papa Sow bàyyiwul sax xel Siteu ñoom ñaar bokkuñu yoon du maasam du moromam billaay wallaay taala war na yàlla lamb moo tëri rek ak may chance nii gaan ak tolof tolof kese Papa Sow barki alxuraanul karim maa ngay ñaanal yàlla mu may ko ndambu sit wicc te Siteu nag ak booy jaamu gën ñu ñoo leen dàq fuuf wax wax ju ñaaw mais ñun ay noobul lañ ñun yarewuñ ñun noonu xamuñu loolu ñun dañuy xam luñ xam tey boo ñu fekkoon fii nii muy taw nga ci xam ne ngay xam ne carrément ñun ay bankañ la ak ay buy taw ñu ngi si kaw tali bi di ko ñàkkante chaque jour ko jëfee ñu ngi fii si oto yi ak ñun ñoo leen ko dàq a ay tarkinda booy li ñuy xeeñ diyoowuñ ko ñun ay mbaxalu xeer lañ kudu bu mag moo ñu yëngal kudu bu ndaw bu duggee day damm ñun ñoo leen gën a bon fuuf ñun ñoo leen gën a bon fuuf fuuf fuuf bon fuuf booy li xeeñ ko billaay wallaay taalaay bu nee lu bon rek ñun xam nañ ko bu baax a baax a baax mais si ko rek dañ leen gën a xam yoon bi dañ leen gën a xam yoon bi booy képp ku ci bëgg a dem town te jaaroo parcelle doo dem town ku ci bëgg a dem almari te jaaroo parcelle doo dem kon boog ñun ci bon lieu bi lañ dëkk yéen ngeen dëkk ci bon lieu ankay ñoom ci bon lieu bi lañ dëkk ñu nekk si bon lieu bi ñun ay noble lañ on est fier d'être des gis nga parcelle benn affaire la parcelle parcelle ñëpp ñoo xam am parcelle ñun ñëpp xamante muy unité 1 ba unité 5 boo yëpp boo yëpp dañuy bëgg Papa Sow te boo yëpp laa dañoo manko bokk ndey baay xamante seen biir parcelle nit mënatu leen jaxase du benn doomu aadama boo xamee laa di nga jige ala yaa ñëw pour jaxase booy parcelle mënatul nekk waaw grand naka mu. waaw café bi waaw. am café sa café dara neexu ci. café moom dara neexu ci. waaw waaw nangu naa nangu naa coow jubul hmm. waaw waaw. mais yow amoo pression ci bés bi. waaw bi bés bi si benn pression sant yàlla rek xam ne léppay baax incha allah. Hmm. waaw waaw léppay baax fan nga ko teg yow. waaw léppay baax yàlla rek lañ ko teg yaa ngi dajeeg daanaan di dajeeg xale mais daanaan daanaan di dajeeg booy jàmm ak gën. waaw le phénomène de lansar. waaw ñun le ñun ñoo njëkk si aar bi ñun loolu jaaxal lu ñu ñun. Ah, loolu dara loolu métti wut. Ah, waaw. da ngay ñëw jeexal wala ngay taxaw di ko xoos di ko góol ñun daal dana ñëw ñu ñu ñëwee daal après pare nañ ko après bu bis baax rek dina leer incha allah bu bis baax yow. waaw loolu la. sant nañ baax wax ma tur bi. Arama la tudd ñu naa ko Sooy. Sooy waaw Sooy mooy lu amul dara. mooy lu amul dara. tous. <laughs> <laughs> kuy rëbbul sooy booy gérer xale bi sooy yow di nga gérer nii sooy. non ñun duñ gérer. booy gérer doo sooy. déedéet. ah yow tous. ñu ñu gérer taluñu jigéen ñi sax ah, taluñu ñu déedéet. Ah, ok am nga soxna. am nañ soxna kay. ah ok ah, yow boo yàlla nga sooy. amiin waay amiin waaw mais naka bés bi. waaw bés bi man dama gis da ngeen waaj waaj boo xamante ni. mosuma mhm. ko gis ci Papa Sow. dëgg la. jàmbaar wrestling dafa ñëw. kenn du woon nag seexu naa de comme seexu naa kooku mooy Amdi Moustapha kooku Amdi Moustapha la. gaa yi toog am kooku am di Amdi Amdi comme seexu naa xam nga seexu naa yow. kooku ay Amdi Baye Fall bi nekk si wiir wiir. bi ànd ak saaneex. teg teg oh, moo tax gisoo. yaa jël mu ñëw gaa yi toog mu def ni muy def dem yoonam. alors mais bi amoo ci yow. pression dama gis tamit waaj bi ngeen waaj. Mhm. moo suma gis Papa waajee ko. dafa mel ni ki jàmbaar wrestling dafa ñëw indaale lu bees. loolu moo am sax dañoo indi lu bees. dañoo indi lu bees. ginnaaw yàlla bi ñu sant yàlla jël si yeneen bi sant suñu ñaari waay ñu gërëm ñëpp di bëggee ñëpp. ah di bëggee mafia bi 12 37 di bëggee ñëpp. Papa Sow sunu grand la Siteu sunu gaan la ñun dañuy dem jàmm geen dafa dem lépp. an ah, Siteu wax nañu ko li koy wax. mais gëj ngeen jàmm gën de. gëjuñu fa cant gi lañ fa gëj. bu cant gi lañ fa gëj te papa bañ koy yeggee lu leer lañ ko wax. bu combat bi ñëwee lii rek nga am bàyyi faal yi bëgg la kese. Mm. jël defet bi dañ ñaan nañu yàlla bu jour ba bu soobee yàlla ak yonent bi. Mm. Papa Sow téye ko daf ko lu métti ñu xam ne kii wax ak ak jëf bokkul mm. ñun jëf lañ mën. jaama ngeen ku leen xam-xam na wax lañ. waaw jaama ngeen ku leen xam-xam ne ñoo wax rek lañ mën. ñun li ñu wax moo nekk si ñun. noo ñun duñu wax lu bon non ñun duñu wax lu bon. ñoo leen gën a teppi. ñoo leen gën a teppi. non ñun duñu wax ak ñoom sax ay soos bi ay amul ay rankokong mafia douze trente-sept muñ yow ba jamono neex bu soobee yàlla ngay muñ ba jamono neex kon ji ngay wax doo ko bàyyi ñu da leen gën a xott ay xasaw xunu ñun billaay moo si la ñuy ndey lekk si la ñuy ndey naan ñoo leen gën loolu rek lañ fi wax rek bu dul wax duñ def dërëm bu dul wax duñ def dërëm waxal waxal Siteu kii dootul wax Siteu sunu mbër la waaw Papa Sow da koo mën ëpp ko doole waaw Papa Sow da koo mën ëpp ko doole gën ko yàqu mm. Siteu bëre bi muy bëre daanuñu Siteu seet dem nañ ko yóbbu ko ñu ne Naaru Sokaas Naaru Sokaas defal ko lu yomb. ñu sa Naaru Sokaas daan ko ñu jox naar Sokaas victoire parce que boobu Siteu dañoo bëggoon mu jàll. Siteu bëri na fekk Zarko Zarko daan ko ñu joxaat ko victoire waaw bii nag lay leere bii dina ko wan ne tarkindaa la ñun ay curkindaa lañ comme moom. dina xam ah, tarkindaa curkindaa feere waaw nan bokk fële moom oh, tarkindaa la. mu ngi mel ni Ama Baldé rek man mënu ma si Ama Baldé laa gën a mën a waxal sax kaay ñi. Ama xiir la yor dañuy nangu nday xiiram. ba Pikine bàkki Serigne Touba non yéen a ngeen a baax rek affaire yi Papa Sow la waa jaam ngeen wax rek ngeen def yéen a leen tous affaire bi tous wala la tous ñebe dama ne la Ama Baldé kooku du ñu xam moom kooku mbër bu asma la kooku ñu xam nañ ko sama kii kooku mbër bu asma la sama doomu yaay nii gara Serigne Bamba xam nga taxaas yow yow waaw yow si indee boppam la koy dóor si te li muy xaaju noonu li muy diwoo xeeñu ko si te li muy diwoo xeeñu ko amatos barke alxuraan baasoo la baasoo da ngay doxala baasoo da koy defaral defaral yu gaaw sax barke alxuraan si te biir bi day daw ñun xam nañ ko yow ba day sóob am xam naa ñaar ñooy wax après mu comme waaye waxtaan boy boy boy boy boy na doy na doy eh. amul la si ba tey mi lañ nekk ndeyam mu ngi leen gën a ngemboo glace suuf tey jour si gaa ni nga xam ne léegi dëgg la mooy nga bilaa wala si ta da ngay xànjoo booy faal woo de wuyu li ngay xen di woo ko ta amoo fit te bu yàlla defee jàmm rek ba arbitre ne prix si suuf la lay foree bu soobee yàlla ak yonent bi dañ lay yëkkati yow bu soobee yàlla war na alxuraan di nga jigal si suuf pour jëm yaa ngi rek yaa ngi wax rek alxuraan dañoo xam suñu mbër dañoo xam suñu mbër waasaw waasaw waasaw dañ ko xam di ko yóbbu géej suba ngoon ku dégg waasaw nelawul yandoor na ñëw fii waasaw te mbër buy fecc la du mbër buy bëree ñu wax rek maam seet maa lay seetaan yéen a ngi wax rek maam seet Mbacké baram Daaru Salaam la si du mbër buy bëree non si da taasu kon la kay xam nga ko taasu kon si da xam na si da si da boo gisee ñu xaw ko si da boo gisee ñu xaw ko si da boo gisee ñu téye ko ci benn côté xam nga la moo tax dañoo xaw a doon Baye Fall doon ñëwal fii voilà Baye Fall la quoi. caxal ma micro bi. caxal ma micro bi. li ngay conseil li ngay conseil mooy lan man xam naa ko eh, xam naa ko dox yàmba leneen lañ ko war a wax mooy si ta bàyyi li yàmbaay non da ngay accusé non non da ngay tooñ da lay porter plainte da lay porter plainte ñu xam foofu da lay plainte waaw ñool fii si matar dañuy wax yow dootoo wax yow da nga bon ah, ñool fii ñool lii nga moog du jéy mi ak du ñu bon la ah, ñool lii mu gaaw xawoon na ta xawoon na bon mais dafa tane ah, yow moom wax ju rafet ngay wax ñool lii alors nagamu nice nice yaa ngi ko neexul. cool gars yi bon nañ. gars yi ah gars yi mooy loolu. wala a bon. non maa gën a soxor. yaa a soxor tàng jër laa. waaw léegi yéen. waaw tarkindaa yi pare na. waaw. ko ci Papa ba pare. dañ ko indi place Z mu xoolal mu posal ko ay ongul ko potel ga ay noppi noppi dootoo ah, man damay ñibbi waaw waaw waaw yow rek yaa wax ma ñibbi waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw bàyyi leen ko mu wax naka mu nice gaynde cool cool bu yem rek comme ni xaar booy bi wala booy bi da ngeen moom saa loolu boo ko laajtee day mel mooy loolu sax gaari lay reetaan gaari lay reetaan waaw ceena Karbala waaw wax wax ngeen ba pare may lan seen copain ñu wax bokk voilà yéen gaaw waaw nga ma ne gars yi boo waxee Papa Sow day xaar booy loolu wax ji yàqu la expérience bi warul taxaw di bokkul sax seen yoon la moo bokkul xëy na xaalis moo leen boole moo waaw Siteu dañ koy maye chance rek xam naa daa bëgg a eggali kër gi xam nga rek mooy loolu yaa ma gën a xam. non non Siteu tabax na ba pare. non non yow xamoo lu xew. man xam naa lu xew non xamoo lu xew gis naa ko. waaw jéggi loolu amul benn problème dëgg naa sa wax. waaw mooy loolu. <laughs> Ah, mais man booy jëmbëgg lu ma leen xamal nañu bàyyi wax ji wax baaxul. waaw nant dëgg du wax. waaw ndax li ñuy ñod noonu. ñun ñoo leen ko mën ñun ñoo leen ko fuup. waaw fii mooy toju mbaar. boo déggee ASC toju mbaar fii la mm. bëre bii la mafia bi mm. mafia toj sa mbaar fii la mm. Pikine amul tur ñun suñu tur dem na fépp boo demee boo jëmbëgg nga laajte leen toj sa mbaar fa la dañu la wax nekk waa booy Papa la ñun li ñu si boole wax ñun ba bés ba rek ñun jëf la ñu xam gaynde ñun jëf la ñu xam bu ñu di wax sax am na lu tax voilà noonu la fa demee noonu la fa demee ñun dañuy toog si caméra yi si télé di bëw ba si TikTok di bëw ba lu xam ne amul yoo xam nga booy li ñuy wax sax amul dafa teguwul sax dafa tegu nan te du toog léeg-léeg lii ay booy PA bi ñu leen jàppee dinañ kat sande dinañ toja mbaari ay jaas la ñu yor xam nga loolu wax ji yàqu la ay xaj balkon lañ nañ bàyyi bëw bëw baaxul. mais bu leen xeex xeex non ñu lu ñuy xeex. ku mu neex tim ku mu neex tim say ginaar. daf bëggu neen tim say ginaar sa coca cola wala sa fantaa wala say door ak say bon laa la wax. ñu lay fi mel ngay saaga ay ndey loolu dafa yomb. dafa yomb si appartement wala si biir kër. loolu dafa dafa yomb. mu neex na saa bés ba bés ba dañuy tëgg. waay yow bu tax ma wax waaw saaga la Sénégal waaw xam nga Sénégal la la dañuy jël nit jaay ginaar bu muy mbëkkee du yoon si da gars yi ñoo koy xam ne ne moo du combat wax bi nag gars nekk fii wax du kët kët mais bu arbitre prix bu ñu daje si biir géew bi ñun xoolal dañuy gàddu suñu bagage dem ñibbi xam ne ndam li day ñëw gars yi ñooy nekk fii di wax rek wax baaxul na ñoo taxaw rek na taxaw dëggal boppam rek looloo si am important bu taxaw dëggal boppam dina gis lu mu musul gis billaay wallaay tous nag ak gaynde bu mag bi jëlal noonu la demee di nuyuwaat gaay rek di bëggewaat gaay rek waaw di nuyuwaat waa Sénégal ñi nga xamante ñoom ñoo ñëw fii parcelle pour def émission mu nekk affaire bu naaj boo xamante dañ koy rafetlu daal. Hmm. waaw di wax ak Siteu nag ne ko na te xam ne lamb ji du lamb wax. waaw waaw du lamb wax waaw lamb jëf la. Papa Sow ak Siteu bokkuñu yoon. mais Karbala Siteu waxul ba tey la wax. waaw moom moom booy jaam a gën yi ñooy Siteu rek Siteu waxul mais mu ngi waxloo ay njabootam waaw Siteu waxul mais mu ngi waxloo njabootam parce mooy booy jaam a gën yi ñooy Siteu Siteu mooy ñoom parce ñoo nekk ci ginnaawam lu ñu wax rek wala ñu am sañ-sañ wax wala ñu am fu ñu ko teg rek Siteu mooy seen ginnaaw yaa ngi dégg mais luñ luñ koy wax bëriwul bu jour làmb jaar na ñëw dëggal boppam Papa Sow du moromu Siteu li mu def si làmb Siteu defagu ko. xaaj defu ko Siteu combat capital yi mu am yëpp da koo ñàkk. combat capital yi mu am yëpp da koo ñàkk. noonu la demee Siteu. mais wuy ma waaw euh, sa mbër sa xarit la Papa Sow. bu ñu ne Karbala. waaw Papa Sow ñëpp xam nañ noonu la demee sa doom ndey la. waaw comme ñëpp ñëpp ay doom ndey la demee yi noo gisee mbër. dernier jour dama gisee mbër mbër mu ngi mu ngi ci état mu ngi ci état de bu naa liggéey na loo xamante ne mën na daan ku dul Siteu dafa wàññi poids parce que combat bee ko laaj parce que ki bërël dafa laaj mu wàññi poids mën a moom yaramam mën ko jaar fu nekk te Papa Sow Siteu jaaxalu ko bu ñu jàkkaarloo pour Papa Sow fi muy jaar Siteu loolu bu kaa loxo yi jot na loxo yi jot na mais mandiwul bëre te Papa Sow daa mandi bëre ku xam Papa Sow xam ne kat la waaw bokk bokkuñu Siteu mandiwul Siteu mandiwul bëre mooy li ma la wax sànq rek Siteu Siteu xam nañ ko bu baax combat capital yi mu am yëpp da koo ñàkk combat capital xoolal ma Siteu combat yi mu bëre capital yi ban combat la ci at mii nee ma combat bii la amul Siteu combat yi ñuy tax ñuy wax combat. contre guy gi da koo ñàkk contre Sa Thiès Zarko xoolal ay affaire da xam nga rek yaa ma gën a xam mbooloo moo tax ñu jox ko victoire boobu mais ku nekk xam ne Zarko sax da koo daan. Mm. waaw parce ñaari site la Zarko njëkkoon daan ban appel bon non yooyu moom amul sens lii lamb la sport la kaf agré la quoi fair play la yaa ngi lamb nag moo baaxoo coow quoi mais affaire bi du xuloo du xeex bu bés baa nag gars yi ñëpp mobilisé waaw Pa Pa Abdou Fall jaamu dox ñun tamit jaamu lañ bëgg tax ci jaamu la ñuy dox parce que lii ñi mbëri yi bëre sax duñu ay noon ay adversaire lañ waaw ay doomu ndey lañ làmb moo leen boole rek contrat moo leen boole bu jeexee jeex na hmm. kon na gars yi dem si jàmb ji làmb si jàmm ñibbi si jàmm bëre ko si jàmm jeex si jàmm fair play ñun loolu lañ bëgg waaw yaa ngi wax sa wax yu bon hmm. waaw bésu lu baax la. incha allah ah, yaa may waaw bésu lu baax la amul saaga amul sànni xeer amul kataa. si ko ñoom ak ñoom nit ñëwee rek. ñoom ñoom bu ñëwee si jàmm. ñu woo si jàmm bu ñëwee si safaan ñu woowee leen si. bu ñëwee si lu naka sudul noonu tamit ñu ñëwee noonu rek bu ñëwee jàmm bu ñëwee jàmm ñu ñëwee jàmm. waaw parce que ñoom parce que parce que ñoom liñ bëgg ñun duñ leen ko may. du leen ko may de du leen may dërëm te Papa Sow nag dinañ moom dinañ. maslaa pour lan gaynde bu ñu saaga bu ñuy saaga ñi jaar fu ñaaw mobilisation bi mobilisation bi génneewul biir 19 rek de mobilisation bi secteur par secteur la ba biir face bi nga xam ne dañ fa jógee sax ba nii dañ fa am ay car ay car ak ay bologu billet Grand Médine bii ngay gis nii bu jege bii Grand Yoff ba Kaolack ak fépp waa Gambie ak ñëpp ñu ngi leen woo si lamb ji ñu ñëw ñoom ñëpp unité unité 1 ba unité 26 ñoom ñëpp ñu ngi leen ñu woo. yow wax ju bon ba ngay wax nege xaw ma moo gën a yiis ñëpp Zé a yiis yow yow may tëjal mm. jeex na dañu war a dem euh, benn mbir. suñu suñu papa jooju génn àdduna Lamine Diack fa lañ jëm levée du corps bi Lamine Diack mënul woon ñàkk ñu ñëw fii waaw yàlla na ko yàlla waaw mënul woon ñàkk ñu ñëw fii fa la ñuy jëm nii gars yi yéen ñëpp mënoon ngeen wax waa xam nga léegi nag euh, ban ban appel ngay def appel bu mujj bi ci bés bi incha allah rabbi dimanche waaw di woo ñëpp di woo ñu daan ñëw ñëpp di woo waa Fass yi waa Kaolack moom xam naa ne ñëpp dinañ ñëw mm. comme lu Boy Dieye wax rek woo waa Gambie ak yëpp mm. di woo waa parcelle 1 ba 26 ah mm. di woo waa parcelle 1 ba di ñaan Yàlla Grand di ñaan ndam lu seddu guy waaw jaajëf kon Cheikh Mbacke ndigal day bëre la. Ah, ndigal la ndigal waaw ndigal di ko ñaanal lay bëre day bëre. le 26 ñu koy ñaanal ndax. man man maay wax kenn dootul wax ah man maay wax parce que su ma leen toppee duñ fi jugee. gars yi ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp ah, dañuy dem ah, di leen dem jàmm gën tamit xool ñoom naka la ñu waajee ci bés bu rëy bi Pape Abdou Fall moo ko tëgg drapeau Mamboy Diao mi ngi noonu bésu jeunesse bi la Papa Sow. ak jeunes yi la àndal comme waa parcelle ndakaaru géeg Sénégal yëpp ñëpp ko bëgg Siteu ndakaaru Sénégal ñëpp ko bëgg supporters yi ay jeunes lañu ay xale lañ làmb ji ñun ñoo ko moom ca ba incha allah rabbi Seydina moo nekkoon ci kam bi jaajëf Diouf jaajëf euh, Cheikh Mbacke jaajëf Pape Gueye jaajëf ñaari tànk yi gauche ak droite yëpp mu ngi fi biir parcelle yàgg yëpp jëli bu yàgg gauche droite bi yëpp booy jàmm nga ni tibb na ko jox na ah, kon salaamaaleykum wa rahmatulah